rahmatullah mbokk Sine Vision TV lëkkaloo agence mag boobu ñuy wax Al Nour Voyage ak groupe Moussab yéen a ko gisandoo fii ñu ngi ci biiru aal yi di dugal si yéen pour dugg ci état bu Makka incha allah julli nañ suñuy ñaar rakk ba pare rakk bu njëkk bi Fatiha xul yaayil kaafiruun ñuy toog Fatiha xul walla waxat ñu ngi nii fas yéene dugg ci état bu aj gi gis ngeen fii mooy Zul Xulayfa nee nañ di ko wax biiru aal yi ñu gën koo xam ci ab yaar yi mi ngi nii. ñu ngi nii di waaj a yéegaat ci oto yi commencé waat suñu tajbiyaat jëm màkkatul mukarram kon boog ñu ngi leen di jaajëfal seen euh, yéen waa Sénégal ak ñiy suivre site bu mag bi di Sine Vision TV ak aj Makka édition 2023 ngeen ci àndal seen mbok El Hadji Sele Gueye incha allahu taala fu ñu ci toll rek nañ leen ko dégg ni ngeen ko gisee nii bus yaa ngi nii gaare waaw ujaaj yi yéeg nañ ba pare ñu ngi fas yéene dem def état bu makatul mukarram kon tay ji lañ fasiyene dugg ci aj bi incha allah ujaaj yaa ngi ci bir euh, bus bi machallah ñom ñep ñi ngi def sen sol sen yere armal waaye guñu comme ni ngeen ko xamé biiru ali inshallah buñ fa àggee fa lañi armalé armal nak boko déggé moy dugg ci aj gi ki nga xamantene day def khiran wala ifrar wala tamartut ñom ñet ñep buñu départé medine ñoo bokk fu ñuy dugalee seen yéene su ñu dugalee yéene ba pare nag julli ñaar rakka benn bi fatiha xul yaayul kaafiruun bi ci des fatiha xul wallaahu ahad ku ci nekk wax aj bi nga xamante ni moom ngay def su boobaa nag la ñuy duggaat ci bis yi nii war a daw quatre cent nangam kilomètres di yëkkati talbiyaat bi labbayk allahumma labbayk labbayk laa sharika laka labbayk inna alhamda wa nihmata laka wal mulk la sharika lak comme ni nga xamante ni moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defe woon noonu lañu koy defee ba ñu dugg màkka ñu duggee màkka nag comme yoon dafa xaw a sori dañu dem ci suñu dëkkuwaay yi ku ci nekk ñu jox la sa dëkkuwaay nga toog dal bu ñu dalee ñun ñëpp ba pare nag ci lañuy ñuy waat foofu dem Kaaba ga def suñu tawaaf bu ñu paree daal naan zam-zam daal di julli ñaara xam-xama Ibrahima naan zam-zam daw safa ak marwa su boobaa nag ki nga xam day def tamatul moom day daal di wàññi karawam summeeku ki def xiiraan ak ifraat nag ñooñu dañuy garde seen armal ba ñu jugee minaa kon ni ngeen ko xamee seen mbokk yi yi nga xamante ni ñoo nekk site moom boobu ñuy wax Sine Vision TV an di leen indil la état bu aj gi fu tool ci rek incha allah kon nii lañ koy jàppee bu aj gi jeex والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا لبيك إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk seen vision TV lëkkaloo ak groupe agent de voyage bu mag boobu ñuy wax Nour Voyage ak regroupement Moussab ànd ak yéen ci programme aj bi kon ñi ngi nii di soow yegg si màkkatul mukarram war a def suñu tawaaf ñi ngi ni and ak mbolo mi yëkëti suñu talbiya jëm ci kaaba gi comme ni mbooloo maa ngi nii إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك labbayk allahumma labbayk comme ni ngeen ko gisee ñu ngi nii di dugg ci kaaba gi du mottalee def di soog a yegg si ngeen ko gisee فعلوه حجا حجا مبرورا مبرورا وسعيا وسعيا مشكورا مشكورا وذنبا وذنبا مغفورا مغفورا وعملا وعملا صالحا مقبولا مقبولا وتجارة وتجارة لن تبور لن تبور اللهم اللهم إنك إنك عفو عفو كريم كريم تحب تحب العفو العفو فاعفو فاعفو عني عني اللهم اللهم إنك إنك عفو عفو كريم كريم تحب تحب العفو العفو العفو اعف عني اعف عني اللهم اللهم توفني توفني مسلما مسلما والحقني والحقني بالصالحين اللهم اللهم اغفر اغفر لنا لنا ولوالدينا yena iya, ko gis ñu ni di daw safa ak marwa comme ni ngeen ko gisee ni ñu ni di daw safa ak marwa def nañu suñu tawaf ba bare comme ni ngeen ko gisee ñu ni ñepp sant yalla bu baax a baax jigéen ñaa ñay ni di def suñu safa ak marwa ñu kontaan bu baax baax yalla na yalla nangul ñu ñepp yalla na def bu mu non suñu mujju aj yalla na def jamm senegal

yal na yàlla nangu ñaan yi. yal na soppi El Hadj Omar. yal na yàlla. yal na yàlla soppi El Hadj Omar. amiin yaa rabbal aalamiin. bëgg naa mu mel ah astafurlah mu mel nii sax waaye na yëkkati ko bopp. amiin yaa rabbal aalamiin. travaux yi ñu commencé. amiin depuis 2017. amiin yal na ko suñu borom mottali jàmm incha allah fekk lépp. amiin yaa rabbal résultat yu baax. amiin yaa rabbal amiin amiin. yal na ko yàlla defal amiin loolu am na solo trop. jërëjëf jërëjëf Aj Daawda jërëjëf suñu góor gi yàlla na yàlla wéral ko. amiin wéral tànk yu baax a baax. incha allah suñu góor gi ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax. incha allah jërëjëf. yaa ngi ko yóbbante woon na ma waa kër gi ñëpp yóbbante woon. amiin ku li mu yóbbante si yow. amiin yàlla dogal gën si yow amiin yàlla lakk la. yàlla fu lakk yàlla encadreur sutural encadreur bu doy encadreur. yàlla yàlla nangu leen ñëpp. yàlla na yàlla nangu ak yi yéen ñëpp yàlla nangu leen. Fatima Aïcha amiin. Sénégal yàlla fa yàlla def jàmm. amiin amiin acca waaxu leen bala ñu ñëw ji amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin